أجابني رب السماء والأرض بالذي سما ومنه قاد لسما ونعم ما لي وسما أجابني رب السماء asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ñi teew ñëpp di jiital ci suñuy kàddu di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla def mu yàgg lool te wér ba naal yi mu naal ci yoonu maam sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bi mu àggale ko ci jàmm kon mu mel ne e, sëriñ Abdou Aziz daf nañu présenté mbooloo mi ñu àndal waaye dama ko bëggoon a laytaayale ak tuuti lan moo waral ñoom ñu teew fi Eh, yàlla dafa dogal ci liggéey yu kawe yi ñuy defalal maamam ñu ñaan ko mu sottal liggéey yëpp eh, dafa taxawaloon ay jotaay yu am solo ci njàngaleem Cheikh Ahmad Bamba ci Europe eh, def ko États-Unis def ko yeneen gox yu yaatoo yaatu yàlla dogal nag jamono ya si at mu weesu mu dugaloon ko Espagne ci gox bu ñuy woowee Catalogne muy noor Espagne muy jotaayu kawe yu mu amaloon ci biir université bu ñuy wax Barcelone euh, bi jotaay yooyu amee muy wane ci Ahmadou Bamba comme artisan de la paix muy exposition internationale bu mu def boole kook ay table ronde ay conférence yu am a am solo euh, ci biir loolu mu invité woon waa dëkk ba yëpp ñëpp lañ invité woon euh, mu def ko ci liggéey bu sell bu nga xamante ne nii ñun dañoo gis ne ndekete ñàngaleem eh, Cheikh Ahmadou Bamba rek mooy solution bi nga xamante ne nii eh, moo mën a indi jàmm ci àdduna eh, yàlla dogal bi jotaay yooyu di am Wang Cheng mii nga xam ne moom moo toogal Dalai Lama ci Catalogne yor maison Tibet foofu tamit bokk di di député ci parlement Tibet ñi nga xamante ne nii ñoo nekk bitim réew ñoo génn seen réew génn. Euh, moom bokkoon ci jotaay yooyu bu ñu tuddee Dalai lamaan nag xam naa ne euh, doonatul ku ñuy présenté ci àdduna bi mu ñëwee ci jotaay boobu wax ne ay kàddu yu mu fa yëkkati defe naa kàddu yi sax yaatu na ci réseau sociaux yi wax ne message Cheikh Ahmad Bamba message la bu nga xamante ni dañ ko war a jàngale waaye dañ ko war a jàngale bis bu ne moom nag mu ne woon sëñ bi nu mu def dana ko seet ci Sénégal. defe naa kon illa boobu moo moo waral mu ñëw Sénégal waaye bi muy ñëw euh, mu ngi koy wax démb sëñ taxaa ci jotaay bi nee na ko Himalaya laa bàyyeekoo ci montagne bi gën a kawe ci àdduna e, di wàcc di wàcc ba ba egsi waaye bi mu koy def yàlla dafa dogal mu amoon ay ay wëllëreem muy paaw mii ñoom ñoo bokk li ñuy yëngu paaw artiste la bu mag ci wàllu peintre ànd ak moom ci jotaay bi kii seexam la Herminia Herminia mi ngeen gis nii jaar na ci ñetti diine jaar na ci nasaraani jaar na ci bouddhisme ba egsi ci islam kii mooy borom këram muy kalilu moom tamit di Gàmbi jóge Gàmbi kon délégation bi e, ñoom ñoo seet si sëñ bi Touba waaye bi biñ fi ñëwee it dañ fee fekk Bilal Bilal bokk ci yoon bi di dak Bilal di bindkat bu mag bind na sax livre bu am solo ci Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul bu nga xamee ne day wane ne war nañoo jànge ci moom ngir jàmm am ci àdduna ñu ko fi fekkee eh, mu nekk ak sëriñ Assane di taalibeem yàlla dogal jotaay bi amee mu ànd ak sëñ mortal Fall mi nga xam ne suñu jëwriñ la eh, ak sëñ Dame Xarilo mi yor fondation Khadim Rasoul ak suñu sëriñ sëñ Abdou Wudoon mi nga xamante nii mooy vice président fédération daayira Espagne yi eh, ak ñoom sëñ Idrissa ñi nga xam ne ñooy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi macha allah boobu ba léegi dara manqué wul. lépp nag ñu delloo ko sëriñ bi waaye delloo ko sëñ Abdou Aziz ci taxawaayu rafet yi mam yi mu def Eh, démb ndeysaan def ni sëñ Idrissa nañ leen jëli ba Farafeña xam nga loolu lu lu kawe la dañ leen jëri ba frontière u Gàmbi ndax xam ngeen ne grève dafa am ñu leen jëlee ànd ak ñoom ñu am jotaay bu am solo ak sëñ sëñ Muntaxa eh, programme bi sëñ bi waxoon ne nañ ñëw ci jumaa ji eh, fede sëñ ji li ñu leen di sant bu baax ci turu sëriñ bi moo waral jotaay bi bu ñu noppee ci jotaay bi lépp lu nga xamante ni wàllu wane sëriñ bi la sëñ Abdou Aziz fas yéene na koo def ak ñoom ba ay panel sax programmé nañ ko ci ngoon gi suba ak jàmm mu fas yéene nañoo dem Dakar Masalikul Jinaan euh, muy jotaay bu yu am solo ñu daal ñu xamal leen ne xam naa xat euh, waaye délégation bu bu sell lañ euh, yaakaar naa ne démb tey li mu gis paaw mi ma koy wax nee na ma musta gis mu am émotion bu mel nii loolu nag li muy wane mooy lu am solo la jotaay yu mel nii kon nag ñu ngi santaat yàlla bu baax. Euh, di ko ci sant santu xol di ko ci sant santu làmmiñ di ci sant sëriñ bi bu baax waaye nag di ci sant sëñ Abdou Aziz bu baax a baax euh, ndax euh, gis nañ ne ñun ñi nga xamante ni dañoo nekk bitim réew defe naa bàyyiwuma kenn sax su ma limee ñooñu rek délégation bi gën naa yaatu noonu ñoom sëñ Talla Dieng ak ñëpp a fi waaye ñu xam leen rek ne jotaay la bu nga xamante ni li sëriñ bi def bitim réew ba taxaw ko ñun la koy defal waxuma la dara biñ ko defee Barcelone. Euh, yàlla dogal weer wee passé euh, at mee passé ñu defaat ko beneen université Lérida euh, am na sax ay agrégé ay professeur agrégé yu nga xamante ni dama ne ko man sëñ bi xaw ma ñii foo leen jaar ndax daanaka dañu mujj doon ay bay Faal kon mu wanee ne kon war nañoo gën a mën a laxasaayu ci njàngaleem sëriñ bi gën koo mën a wane bañ ca noppee dañoo jël oto mu dawalite ba Perpignan dama koy xool ba ci yàgg ma ne ko sëñ Abdou Aziz xam naa ne coono yi day mais boo tuddee coono mu ne la déedéet coono amu ci liggéey sëñ Tuubaa kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yéen mu yàgg fi di di di bëgg bu baax ci jotaay bi ci fan yi ni mu tëddee waaye ci weer yi ak at yi ni mu koy liggéeyee eh, te université buñ ci dem rek yeneen université laaj ko loolu loolu moo gën a yéeme ci liggéey bi ndax dañoo jógee université Barcelone université Lerida daa jël yeneen université di ko laaj ñeneen ñi yittelee yittewoo ñàngale sëriñ bi eh, ba ba ba nga gis ne dekete liggéey bi kon du senegal kese kese kese kese kon dañuy jàpp ne Cheikh Ahmadou Bamba humanité bi moo ko yëkkati kon nag euh, ñu ngi ciy santaat bu baax jotaay bi ñu am ñu ngi ñaan mu gën a yaatu ñu ngi ñaan ñu gën ñu ubbi lit euh, ba ñeneen ñi nga xam ne dañoo yittewoo Cheikh Ahmadou Bamba mën a jot ci message bi nga xamante ne nii moom la jox moom la jox humanité te sëñ Mountakha di ko wax démb ndax bi muy am moom jotaay da koy wax ne kat léegi nag da xaar ma leeralal la euh, ma lay leeralal mooy foofu lay daanele ni ngi koy wax wàññi démb mooy dafa mel ne àdduna dafa jëm ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul noon yi taxaw ci kanamam mu ne yat du jóg léegi ni ñuy def mooy yéen toog leen man ma demal leen sacrifice boobu <laughs> bu yëg-yëg boobu eh, naa dem ñëw bu ñu ñëw bu ñu ñëwee ñun ñëpp ñu bokk waaw sacrifice boobu nag dañ cee war a yëgaat ne nag ñun ku ci nekk ci ñun nag ban taxawaay nga war a am ci liggéey bi nga xamante ni moom la def kon yàlla nañu yàlla dëbb kàttan eh, yàlla nañu yàlla dimbale ba ñun ku ci nekk ci ñun taxawaay bi ñu ci war a def nga def ko ñu tàmbalee ci sëñ bi yam ci sëñ bi te kenn bañ cee gis boppam xam naa ñu tënk kàddu yi ci espagnol rek euh, en el nombre de Dios clemente y misericordioso hacía un poco la presentación de la delegación eh, que han venido de España y sobre todo a Wang Cheng que representa el Dalai es parlamentario eh, en el Parlamento Tibet de los exiliados ha venido del Himalaya en Tibet Eh, una zona muy alta hasta llegar aquí, acompañado de su, su colega o amigo Pau, un artista, acompañado de Herminia, que es la, su, su, su gemela, y de su marido Kalilu. Son invitada de Serigne Abdou Aziz, que ha hizo dos exposiciones muy importantes en Barcelona y en Lérida enseñando el mensaje de paz de Sheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul, que el mundo necesita eh, en esos momentos muy difíciles. Eh, llevamos desde ayer, el Serigne Aziz nos dijo de ir a buscarles en, Farafeña, en la frontera de, Gambia con Senegal, porque ha habido una huelga. Ayer estuvimos con uh, Muntaha, que le transmitió un mensaje de paz un mensaje de, de decir que Sheikh Ahmad Bamba es la solución y que se debería aprender para fortalecer los lazos de convivencia, de interculturalidad y luchar contra el racismo. Cuando vinieron habían encontrado también a Serin Bilal. Bilal es un escritor, ha hecho un libro muy importante sobre Sheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul y ha estado también con Serin Mortala Fall, ha venido también Eh, el Sëriñ Dam Kharilo, que es el presidente de la Fundación Khadim Rasul, y también Sëriñ Abdou Oudoud, que es el vicepresidente de la Federación de los Dairas Murid de, de España. Alhamdulillah, toda la delegación está aquí. Seguiremos trabajando entre hoy mañana. Mañana sería el último día. Esta tarde tendremos paneles, debates en el seno de Isbutargia, inshallah. y también de todos los talibes que han pedido hacer posible esta jornada, citando sobre todo a Serin Idrissa, Idrissa Gay, que está acompañando también el Serin Abdelaziz desde el momento que habíamos empezado a hacer la gira. waaleykum salaam wa rahmatulah taala ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen dalal bu baax ci bërëb bu tedd bi di leen masawu ci coono yi ñu ñëw na ngir tënkal leen wala indi leen ay leeral ci. bërëb bi ngeen xam bi ngeen ñëw fekk si fi am mbooloo ak mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo yor gestion jumaa ji te xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké dénk leen ko ok pues uh, asalaamaaleykum warahmatullah eh, buenos días uh, la bienvenida en la mezquita eh, aquí estamos en un espacio eh, de la association o la daira que coordina todo el trabajo que se está en la mezquita en el nombre de, bueno, el, lo, las, eh, la, ndigal ou bien la, la forma de, de Serigne Mountakha que di dijo de llevarlo en esta eh, avant tout ñu leeral ni jumaa ji mi ngi nekk fii ci Touba di dëkk bi nga xam ne sëriñ bu mag bi sëriñ Touba moo ko moo ko sos sëriñ Touba mi nga xam ne mooy fondateur du yoonu Mouride moo ko sos jumaa ji nag bokkoon ci mébét yi nga xam ne bëggoon na ko mu am ci dëkk bi bokk na ci ci mébét yooyu tamit jàngukaay bu mag nga xam ne Sëriñ Muntaxa mi ngi koy waaj a ubbi bokk na ci jumaa ji nga xam ne ci lañ nekk tey ak aji màkka kon jumaa ji dañ koy séddale ci ñetti pàcc. ok esta mezquita ha sido

fi liggéey bi tàmbalee euh, muy demande autorisation bi pour tabax jumaa ji mi ngi amoon ci atum 1925 euh, ginnaaw bi tamit euh, murid yi siñ sas nañ leen ngir ñu jaayante jaayante boobu nag ndigal li ñu ngi ci jot ci 1926 te siñ bi joxoon ndigal taalibe yi ngir ñëw jaayante lu jëm ci liggéey bi. Entonces eh, la mezquita ha sido fundada en 1925. baaxoo baaxoo el control de, de Sheikh Ahmad Bamba. En 1926, eh, Sheikh Ahmad Bamba dijo de hacer una recaudación entre todos, entre toda la comunidad, para poder ponerla en, en marcha. waaw jaayante yooyu nag loolu lañ xamee yoonu murit ndax liggéey bu ñu def dañ lu ci ëpp dañ koy jaayante taalibe yi ñoo koy jaayante jaayante boobu nag ñu xayma woon ko ci kenn ku ne cent quarante cent quarante franc di tolloog arafi Touba boo ko wàññee ci arafi arab ci lettre arabe. Entonces, en su momento, en 1926, se dijo de recaudar el dinero que debería llevar a cabo la construcción de la mezquita a nivel de la comunidad y se pedía a cada persona 140 francos eh, en un término de la palabra, corresponde con la palabra Touba. Euh, jamono yooyu nag liñ dajale woon tolloon na ci cinq millions ca jamono yooyu. su momento se hizo una recaudación de unos cinco millones de francos CFA. Euh, ginnaaw loolu nag ci lañu tàmbale liggéey bi ci vingt cinq safar euh, mille trois cent quarante cinq ci gàddaay gi dëppoo ak atum mille neuf cent vingt six la maam Thierno mi nga xam ne rakk la ci sëriñ bi jógee Daarul Moti ngir ñu tàmbalee gas xeer yi nga xam ne. moom lañuy liggéeye liggéeyee euh, lu jëm ci jumaa ji. 1925 waaw 1900 1926. Entonces se, se empezó eh, la, la, la, construcción en el, en el año 1926 eh, uno de los hermanos eh, de Cheikh Ahmad Bamba que se llama Serigne Mame Thierno. ci guddi gàmmoo ci at moomu euh, lañ lañ tàmbalee jëlee xeer yi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ndokk ndokk di benn dëkk. boo xam ne soriwul Touba dara fi lañ doon jëlee carrière yi wala xeer yi nga xam ne moom la liggéeye liggéeyee jumaa ji kon ci guddi gàmmu ci atum 1926 moom tombeeg 1345 ci lañ tàmbale woon liggéey boobu maanaam indi xeer yi ci dëkk bi ngir liggéey. Asido el inicio de la construcción de la mezquita en el en el año 1926 en que en que su su su el el control y bajo la coordinación de Serigne Mam Cherno se debería llevar piedras desde un pueblo, unos, unas piedras que debería eh, ayudar a la construcción de la mezquita. Eh, ginnaaw loolu nag xam nañ ne sëñ bi da ko mébétoon waaye antuut ci ay jamono ginnaaw bi bi mu fi jógee ci atum 1927 euh, ki nga xam ne moo ko njëkk a wuutu ci bopp bi di Cheikh Mouhamed Moustapha di doomam bi mu ñëwee. Euh, tàmbale na liggéey bi soobu ci société bi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ci jamono jooju di société française ñu ngi ko doon wax dara daragage. ok euh, Cheikh Ahmad Bamba pidió la, la, la autorización, pero los colonos negaron de que debería empezar la construcción. Entonces, en 1927, después de su disparición, uno de sus hijos, Muhammad Mustafa, el, el, uno de sus hijos empezó a a, a, a la, la, baaxoo bajo una, una, empresa francesa que se llama Dragage. dafa bokkoon tamit ci euh, charte yi nga xam ne tegal nañ ngir mu liggéey raay bi ngir mu liggéey jumaa ji ab raay boo xam ne euh, mënta ñàkk ngir bagage yi nga xam ne moom moo war a ñëw ci dëkk bi ñu war koo liggéeyee euh, jumaa jeeg yooyu raay boobu nag ñi ko tàmbalee liggéey bi ci 11 novembre 1929 lañ tàmbalee liggéeyu importante para a cabo la construcción de la mezquita, poner en marcha el ferrocarril para poder llevar todo el material. Eh, no ha sido posible en un primer momento, pero se construyó después el ferrocarril que debería llevar todo el material hacia la, la ¿En qué? a, van a? en en el 11 de noviembre de 1929. Euh, ginnaaw bi nga xam ne liggéey pare na train bi première bi mu njëkkee ñëw ci ci ci dëkk bi yoon wu njëkk bi mi ngi nekkoon 21 mars 1931. Aussi que el el el primer tren que llegó ha en marzo el 21 de marzo de 1931 ha sido el primer tren que entró en la ciudad llevando todo el material que debería construir, construir la, la, la, la preparación para la construcción de la mezquita. ginnaaw loolu nag ñu ñëw ci liggéeyu jumaa ji nag kon liggéey bi li ci njëkk mooy nattu penku jumaa ji ngir nattale ko ba mu tolloo xibla loolu nag ñi ngi ko defoon ci yor-yoru bisu àjjuma tolloo woon ak 19 février ci atum 1932. Por lo tanto, venimos ahora a explicar eh, cómo se llevó la construcción en 1932. Se empezó a medir todo mm, para poder llevar a cabo la, la construcción. bi nag ci lañ gas fondement bi ñu ngi ko defoon ci bisu àjjuma ci suba gi tombé woon ak 4 mars 1932. El 4 de marzo que ha un viernes se empezó a hacer el fundamento de todo la, la que se debería llevar para la construcción. ginnaaw bi ñu teg euh, xeer wu njëkk wi di première pierre bi ñu tegoon ko ajjuma 25 mars ci même at bi 1932. El 25 de marzo 1932 se puso en marcha la primera piedra que empezó la la construction. kenn ku ne xam ne 1940 moom la deuxième guerre mondiale tàmbale woon bi tàmbalee. Euh, tax na liggéey bi taxaw bi liggéey bi taxawee nag euh, ab diir ci ba ba 13 juillet 1945 si Mor Moustapha mi nga xam ne moo njëkk a wut sëñ bi ci xilaafu général des Mourides moom wàcc ab liggéey. Todo mundo sabe que en 1940 empezó la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo un parón. pero luego después de 45 uno de los hijos de, de bueno se falleció Serigne Mohamed Mustafa eh, uno de los hijos de Cheikh Ahmad Bamba y después uh, eh, él a el año 45 ginnaaw bi nga xamee ne Serigne Mohamed Mustafa jógee na fi nag Cheikh Mouhamadou Fadal nga xam ne mooy ñaareelu xalifa général des Mourides wuutu ko bi mu ko wuutoo nag euh, ci 16 mai 1949 la tàmbaliwaat liggéey bi euh, ci ginnaaw bi nga xamee ni toog na ci ci ci ci ci xilaaf ci xilaafa gi lu tolloog ñeenti at ginnaaw bi mu toogee la tàmbaliwaat liggéey bi. pour lo tanto 45 1945 se falleció Sheikh Muhammad Mustafa después hubo el segundo jalif Sheikh Muhammad Fadal y de cuatro años en 1949 vez a mover la construcción de la mezquita. yàlla dogal euh, def ci tawféex ba euh, ci ci ay jamonoom liggéey bi matee. mu inauguré ko ci 7 juin 1963 dëppoo ak 14 muharram 1300 1382. Por lo tanto, el segundo Khalif Cheikh Mohamed euh, Fadilou acabó la construcción de la mezquita y se hubo el día inaugural el 7 de junio de 1963. kon budget bi nga xam ne def nañ ko ci ci jamono yooyu mi ngi toll ci 677 millions 648 mille 838 francs. Entonces, uh, el, el, presupuesto que se, que a cabo la construcción de la mezquita era 600 sí, millones. 677 millones. 600 millones, bueno, tocando los 700 millones de, de franco CFA. Eh, surface bi nga xam ne mooy surface jumaa ji yaatuwaay bi mi ngi toll ci eh, huit mille quatre mille sept cent quatre 8000 8790 c'était 190 metros cuadrados en, en, en todo alrededor de la mezquita la superficie jumaa yi tamit porte yi nga xam ne moo fi nekk bunt yi fi nekk mi ngi toll ci neuf maanaam juróom-ñeenti bunt mm-hmm. moo nekk ci biti sept nekk ci biir lépp lépp boo ko boolee mm-hmm. muy seize portes tenemos eh, dieciséis puertas nueve eh, fuera más siete dentro no o, contrario eh, juróom-ñeent moo ne ci biti waaw siete nueve fuera nueve nueve puertas fuera y siete al, a, adentro son dieciséis puertas el total mm. eh, fenêtre yi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji lépp lépp boo ko boo ko totalee mi ngi toll ci quatre-vingt-quatorze fenêtres Bueno, tenemos también ventanas, eh, ventanas en la mezquita. jumaa ji nag juróom-ñaari sorool la mi nekkoon juróomi sorool bi Cheikh Seydil Muxtaar mi nga xam ne mooy juróom-ñaareelu xalifa général des mourides nag suñu borom yokk ngërëm ak i leer bi mu ñëwee la ci yokk ñaar muy juróom-ñaari sorool nga xam ne jumaa jamono ji juróom-ñaari sorool la antes eh, habían siete cinco minaretes ahora son siete porque con el califa anterior de Serigne Mountakha eh, Serigne Sidi Muxtaar eh, que descanse en añadiyo dos minarites mas sorool bi nga xam ne moo ci gën a gudd ñu koy euh, njëkk seen ci dëkk bi mi ngi toll ci quatre-vingt-sept mooy gën a mooy gën a gudd ci sorool yi nekk ci jumaa ji bueno la, la el minarete más grande tiene 87 metros es lo la ciudad ginnaaw loolu kon loolu moo aju ci jumaa ji kenn ku nekk xam na ne jumaa ji dafa am mbooloo moo xam ne ñoom la ko sëriñ bi dénk teg ko ci seen loxo ngir ñu yor saytu gi euh, mbooloo moom ñi leen di tuddee daayira Moukhaddamatoul Khidma eso entonces es el primer punto en relación con lo que es la mezquita pero hablamos ahora de de Moukhaddamatoul Khidma que es la, la la que lleva en cargo la coordinación de la miskita la mezquita daayira boobu nag euh, ñi ngi ko taxawal ci mars atum 1994 ci ndigalul euh, juróomeelu xalif général des di Cheikh Saleh Mbacké yal na sunu borom yokk koy ngërëm ak i leer. 1994 mars. marzo 1994 se creó esta asociación Daira para llevar a cabo toda la construcción de la mezquita bajo el Digal o, la, la, bueno, el de Serigne Saliou, que también descanse en paz, era hijo de Cheikh Bamba. ñoom nag euh, seen taxawaay ci jumaa ji bokk na ci di setal jumaa ji jamono yu nekk ak it di fi di ko dundal bokk na ci niñ koy dundalee koor gi boo fi ñëwee ci biir jumaa ji am na ay ndogu yu ñu fiy def bis bu set ci koor gi diiran weer wépp ak it ay waxtaan yoo xam ne danañ ko def lu jiitu ndogu yi tàmbalee ko ginnaaw takkusaan ba dog jot ñu dogal mbooloo mi xam ne ñoo fi teew Claro, explico un poco el, papel o el rol que está jugando la asociación Mojadimatul que decía antes. Primero, llevan toda la parte de la, de la, de la higiene de la mezquita, todo el tema de limpiar la mezquita. Segundo, durante el mes de ayuno, el mes de Ramadán, eh, organizan para cortar el ayuno, dan comer a mucha gente y también se organizan conferencias, paneles para dar vida el, el espacio en, en ay junniy nit nag di ñëw ci ndogu yooyu ak ci waxtaan yi di ko teewee euh, lépp nag ñu leen koy defal euh, ngir yàlla. miles y miles de personas se reúnen durante todo el mes de Ramadán donde cortan y gratuitamente nadie paga nada y alhamdulillah siguen haciendo ese trabajo eh, euh, por, por bokk na ci seenu liggéey tamit ñoom lañ dénk lu jëm ci armeel yi nga xam ne moo nekk ci Touba ñaari armeel yëpp euh, ngir mu gën nosu ci seen loxo la ko sëñ bi teg ñu koy gérer boole ko ak jumaa ji ak pénc mi Otro papel que tiene la asociación o la daira eh, Mokhadimatul Khidma <coughs> es la coordinación de los dos cementerios que hay la ciudad. Euh, uno está de la mezquita, hay un, hay que está en el otro lado. y están coordinando para que se lleve a cabo todo las tumbas la organización de los dos cementerios. bokk na ci ni ñu taxawoo jumaa ji tamit organiser ko ba jaxasoo góor ak jigéen du fi am ngir respecter worma yi nga xam ne moo war a am ci biir jumaa loolu bokk ci biir nga xam ne danañ teqali góor ñi ak jigéen ñi rawatina ci waxtu julli ba duñ jaxasoo. También tienen el control de, de separar hombres y mujeres respetando las reglas dentro de la mezquita para que no se mezclen a la hora de rezar, <coughs> respetando todo lo las normas del, del islam. comme ni ñu defee ay jotaay tamit ci koor gi noonu lañ koy defee ci jamonoy màggal gi ci wàccaayu màggal gi euh, ñu ciy def ay waxtaan yu am solo bokk na ci tamit ci seen liggéey ñoom la si siñ bi dénk leen ñuy accueillir gan ñi nga xam ne ñooy jugee feneen di gane Cheikhul Khadim ngir ñëw di màggal si ci jamonoy màggal decía tanto la importancia que tienen cuando la asociación vida Moukhaddamatoul Khidma organiza eh, todo el tema de Ramadán pero también los paneles que se llevan durante, el Gran Magal de Touba también llevan toda la organización y también lo que acabamos generando ahora que es la acogida de, de invitados, invitadas que vienen de otras partes del mundo. Eh, la misma asociación Moukhaddamatoul Khidma lleva este eh, loolu tamit bo loolu mooy liggéeyam waaye bokk na ci ay liggéeyam tamit dana participer ci bépp activité boo xam ne day am ci dëkk bi wala ci ci ci yoonu yoonu murit gépp yi activités yi ciy am yi ci ëpp da ciy participer di ciy def ab taxawaay. Por lo tanto, explicaba un poco el, el cargo, el papel de la Asociación Muhadimatul Khidma en todos estos sentidos, lo que acabo de decir, pero también participan en todas las actividades que se están llevando dentro la ciudad uh, y participando eh, de, de, de todas las formas. mbooloo mii nii bokk ci ci membre yi nga xam ne ñooy daayira bi boo gisee tamit fii mooy studio bi bureau euh, régie baa ngi noonu muy euh, régie bi nga xam ne mooy chaîne jumaa ji di MK di Moukhaddamatoul Khidma TV di euh, chaîne bi nga xam ne mooy chaîne Jumaay Touba nekk ci biir di diffuser julli bépp événement boo xam ne am na ci biir jumaa ji. También tienen una cadena de televisión que se llama MK, es la cadena educativa y cultural de la, de la mezquita. Estamos aquí en el en que coordinan todo el tema de los rezos, eh, la organización, el control los videos todo et eh, que tiene en relación con la organización de la mezquita. kon loolu mooy ab tënk ci daayira bi nga xam ne moo yor jumaa ji euh, ginnaaw loolu ñu leen di santaat bu baax di leen jaajëfal di leen massawu ci coono yi di sant sëriñ bi ngeen xam ne moom ngeen àndal sëriñ Abdou Aziz mi nga xam ne moom ngeen àndal ak mbooloo mi ngeen àndal ñëpp ñu leen dalalaat jàmm di leen sant bu baax wasalaamaaleykum eso ha sido un resumen eh, o menos de lo que está llevando la mezquita. Eh, muchísimas gracias por su presencia, eh, también la presencia de toda la delegación que están acompañando a Señor Abdulaziz Majalis en este trabajo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. yokk yi nga xam ne moo nekk ci biti bokkutoon ci jumaa mais bi bi sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne mooy ñetteelu xalifa général des mourides bi mu ñëwee ci la ko yokk mooy yokk yooyu ngay gis ay millier personnes di fa di fa jullee mu bokk ci jumaa ji léegi moo moo tax ñu koy tuddee yokk bi ndax bokkutoon ci jumaa ji sëñ Abdou Lahad moo ñëw euh, def ko fi moo tax ñu koy tuddee yokk bi hubo una, una, de la mezquita cuando eh, entrábamos en la puerta veis toda la ampliación pour eso la llaman es todo lo que está alrededor para permitir a las miles de personas pueden llegar a rezar todo alrededor de la, de la mezquita. Eso lo eh, Abdul Ahad, que es el tercer jalif de, de, Ahmad Bamba. Eh, para la bienvenida tenéis café. Sallallahu ala Muhammadin wa En el nombre de Dios clemente y misericordioso, eh, Manchen, muchísimas gracias por su visita en Senegal. Le quería preguntar después uh, de haber estado con el Jalifa Serin Muntaha a Ayer, hoy has estado visitando la mezquita de, Tuba, luego la biblioteca y por último has visitado también la Universidad de Tuba que están poniendo. y también hoy estamos en la casa, en la casa Isbutargia. Me gustaría saber sus impresiones en todos estos dos días que hemos ido haciendo estas, estas visitas. laaj eh, eh, bi rek moo doon ginnaaw bi mu bi biñ ko biñ ko dalalee eh, fi mu jaar yëpp démb ak tey am jotaay bu yaatu ak sëñ Muntaxa démb Poroxaan Euh, tey bu mu xëyee sëñ Abdou Aziz ak euh, délégation bi mu àndal yóbbu ko ci jumaa ji ginnaaw gi ñu dem bibliothèque bi bi ñu fa jógee dem ci université bi bu ñu fa jógee ñëw fii ci Hizbut Tarqiyyah lan lan mooy ay impression am lan la yëg daal ci ci nga xamante ne nii boobu ba léegi euh, mooy visite bi muy def. salaamaaleykum a todos los hermanos hermanas de Sénégal. de verdad que es, eh, ha sido a mi visita en Gambia, en Senegal, fue tan impresionante que no queda ninguna palabra para eh, escribir. Por lo tanto, quiero dar primer lugar, en nombre del Dalai Lama, los tibetanos, uh, quiero agradecer y gracias a todos los calurosos eh, desde ayer del eh, califa. Gran suerte, su bendición y también ah, hoy visitando al ah, mezquita, biblioteca, universidad Y ahora aquí, de verdad que uh, yo siento gran, gran honor y um, gran respeto al pueblo, país senegales, vuestro trabajo que has hecho, ¿sí? Uh, desde independencia, uh, sí, años 60, desde Francia y hasta ahora. Um, solo sesenta y pico años, vosotros vivido muchas, muchas dificultades y hecho gran labor para preservar vuestra cultura, vuestra identidad, vuestra creencia y el mensaje de eh, Sheikh uh, Bamba ah, para sí, preservar y promover vuestro país. Eso para mí es un gran, gran honor y imposible olvidar estos días. waa ci tënk rek eh, ginnaaw nuyoo yi mu nuyoo mi ngi feeñal mbégteem eh, ci tukki bi mu def eh, def ko Gambie def ko Sénégal daje bi nga xamante ni moom la dajeek Cheikh Mouhamad Mountaha démb ci Porokhane bi ñu xëyee tayit mu def visite bu am solo ci jumaa ji def visite bu am solo ci bibliothèque bi def ko ci université bi ñëw fii tamit defaat fi visite bu am solo loolu nag mi ngi ci jërëjëfal bu baax a baax ci turam ak ci turu réew bi mu jógee muy Tibet ak ci turu ki nga xamante ni mooy kilifaam muy Dalai Lama rafetlu bu baax a baax eh, niñ ko gàttandoo niñ ko teeroo waaw teeru boobu daal yéeg na ci yéeg bu nga xamante nii nee na sax du lu mu mën a wax ci ay kàddu mbégte mu kawe kawe la ci am euh, mu romb romb li mu yaakaaroon ne dana ko fi gis waaye moom daal bëgg na ci lool lool lool di xamle rek ne eh, xam ne ne Sénégal sax bi mu amee indépendance am yàggul bu dee ci ay juróom benn fukki at lay toll waaye gis na liggéey bu am solo bu am am solo bi nga xamante ni def na ko lépp ngir siggi ngir ngir jëmal ay mbiram ca kanam loolu nag lu am solo la ci moom daal mbégte mi daal kawe na daal ba nee na du sax doonati ay bis yu muy fàtte waaw kawe na ci moom lool lool lool lool ba yegg ci lool todos somos gran hermanos, todos somos humanos que busca paz, felicidad y éxito la vida. Es tan importante vosotros que nunca olvides ah, del mensaje de Sheikh uh, Su mensaje llega al corazón de cada uno de nosotros e depois é, eh, podemos é, eh, se visita primeira vez, pero espero que no será último y que tenemos muchas uh, vamos en contacto en futuro que vosotros también puede enriquecer mm, conocer otra filosofía otro pensamiento y nosotros también tenemos mucho respeto a vuestra creencia, vuestro eh, camino.